Bienvenue sur Salam Vision. ñu ngi seen émission jotaay askan wi ñu ngi toog ak euh, suñu tonton tonton gannaaw ba ñu la nuyoo ñu ngi lay euh, laaj ne Sénégal jamono gi dañu gis ne euh, yëngu na trop te politique bee ko yëngal ak élection municipale yi ñu doon laaj lan moo siy sa xalaat. waaw ah kanaa man maa ngi tudd Talla Ndiaye nekk fii si marché Pënd ngeen fekk ma fi bon politique bi ah mais dañu war a xam ne ñun ñëpp benn lañu rek parce que Sénégal ndam li mënu fee génn. te képp ku gañe mënoo génn dem feneen fii rek nga ko yemale cest à nag bon nit ku ñuul moo bëgg nguur ba nga xamante ne nii bu koy xëccoo du xam nu mu koy xëccoowee et puis ñi nga xamante ni engou engouement bi xamuñu nu mu demee ñoom it ñu àndandoo ci di def loo xam ne waruñu koo def mais lépp rek bu ñu xamoon ne fii la yem senegal ñëpp dañu teey def ndànk dal fexe fexe ba kum yàlla jox suñu réew mi ñu xam ne moo gën ci réew mi yàlla jiital ko ci jàmm. parce que fii depuis la Wade ñëwee fi ba léegi 2002 ba léegi élection bu ñëw day leer nañ ñi élection fi am day leer nañ ñi kon kay jërul xuloo jërul xeex jërul def lenn bu demee ba incha allah rabbi jour élection bi ci guddi gi képp ku gañe dina xam na gañe na te bu boobaa yàlla na yàlla def jàmm ba ku gañee ñu jox ko ndamam mu sedd guy kenn bañ a coow loolu daal lañ bëgg ñun quoi waaw. papa dégg nañ si say biiri wax nga ne euh, politique bi jarul wax jarul euh, xiiroo jarul ŋaayoo waaye euh, nan nga gisee waxante yu ñaaw yeeg ak yu yu yu kii ñuy defante si politique bi daal. non waxante bu ñaaw moom dafa ñaaw moom xanaa kay wax li nga xamante ne nii moo leer comme ku yoroon yoroon nguur gi mbala nga yoroon maire bi war ngaa mën a wax lu bu fekkee ne def nga loo xam ne erreur la boo xamante ne war nga ko def war nañ ko mën a wax. parce que opposition chaque jour foofu lay fële ci say faay lay nekk di trouver mais xasante moom du lu baax ndax ku xas nit ki xas ka sa bopp mais wax si programme am xam ne la def ko ak lii la waroon defu ko kooku c'est normal ci politique parce que chaque jour ki la say faay lay xool di ci wax bu fekkee foofu la moom amul benn problème mais quand di wax say maam wala say papa moom non loolu moom ñaawlu naa ko ñaawlu ñaaw boo xamante ni moom moom ànduma ci quoi waaw loolu ànduma ci quoi parce que ma sañoon daal dañuy waxante jàmm ku ne wax li nga xam te ni moom moom mooy sa programme bon wax te mu nekk lu dëggu ci yow xam ne ñun bu déglu sa programme mu intéressé ñu buñ la falee bu ëllëgee doo ñu trahir parce que bu ñu trahir tam bu ëllëgee ne lay folli rek mais temps bi nga ciy nekk moo ñuy metti loolu rek la moo tax bu ñu sañoon daal képp koo xamante ne li nga ñuy wax day nekk li ngay def boo paree loolu moo ñuy ko quoi ñun. ma ñëw ci euh, trahison boobu noonu nga wax ndax seetlu nañ ne euh, waaye politique yi ñoom ñu si ëpp dañuy ñëw présenter seen programme wax ba mu jekk nga di jël sa carte daal di leen voter te bu ñu faloo lu ñuy wax duñu si def dara yow nag euh, en tant que citoyen lan nga xalaat ci loolu. xam nga loolu moom moo compliqué parce que tam nit ki am yaakaar ngay def ci moom lim la wax ak ñu ko gisee loolu nga koy falee tout le temps parce que mënoo dugg ci biir xolam munoo dugg ci biir xelam. lim la wax rek ngay xam mais bu la waxee li nga xamante ni moom nga yaakaaroon defu ko bu ëllëgee nga weddi ko rek nga weddi ko rek nga weddi fal keneen rek bu fekkee yàlla tombé nga bëgg mooy ko loolu loolu Sénégal dama yaakaar ne képp kuy xëccoo di kër kër pour defar ko la yaakaar moom nga moo tax nga jóg mais képp koo xam ne pour sa bopp moo tax ngay defaru yàlla bu la yàlla fal yàlla bu la yàlla fal ñun dañoo bëgg ko xam ne bu ñu ko falee mu defar Sénégal effort Sénégal ba nga xamante ne nii côté bu mu nekkee ñoom ñu gis seen bopp ne kii kat wax dëgg yàlla def na fi dara waaye képp koo xam ne boppam moo tax muy politique wala boppam rek moo tax muy wut dara yàlla bu mu ko am politique loolu moom maa ko yàlla bu mu gañ dara Sénégal daal yàlla na ko yàlla jox ñi gën ci Sénégal man na loolu laay ñaan saa su ne yàlla yàlla jox ñi gën ci Sénégal parce que ñun loolu rek moo ñu ñor kuy defar waaw jërëjëf tonton kàddu yi am na solo ba tey rek si actualité réew mi gis nañ ne làmb ji jamono gii nii kenn nangootul bàyyi sa doom muy dem sa sa stade ba te pourtant euh, nekkoon sport bu noo boo xamante ne ku si nekk euh, am bugg amul nga si yéene participer mais léegi gis nañ violence beeg làmb ji bu jeexee agression yeeg yàq stade beeg yooyu noonu yëpp papa lan moo si saxalaat xalaat. ah loolu nag xam nga bon gouvernement Sénégal ak sécurité Sénégal ñoo ko seetaan ba mu egsi fii parce que yàggoon naa commencé di bëgg am. ndax bu ñu masaan seetlu équipe yi fubal nawetaan sax képp koo xamante ne nii sa équipe amul ay booy yu nekk guerrier sax da ngay nekk équipe bu yambare ku ci ëpp ay guerrier daal yaay gañe yaay nekk koo xam ak yaay yaay yaay yaay yaay jël ndam li léegi loolu ñu koy seetaan te loolu boobu lañ ko woon arrêté ñu koy bàyyi ba équipe yëpp léegi koo ci gis keneen ay booy yu bandeem yoo xamante ne nii bon mooy tax mu gañe coupe bi parce que nga dégg ñaan coupe bi ba amul ay bandi doo ko football bu jeexee ñu xeex bu jeexul ñu xeex léegi daal jàppale ne daal ñoom daal violence daal mooy mooy mooy lépp fu ñu dajee rek dañoo def après violence mais gouvernement bi moo war a génn daal di koy criminaliser képp ku ñu ci violence nga tëdd cinq ans six ans jëm kaw suñ ko defoon noonu tëj ci quelque booy danañ ko wàññi parce que amul benn rendement yow da ngay séance sa équipe pour mu fubal wala ngay séance sa mbër pour mu mbër mooy encaisse sa xaalisam moom la ñuy fay yow ñu waroo ñëw lu tàcc ko. moom bu fekkee ne yow da nga xeex bañ toj sa bopp yóbbu la ci police mbër mi du la sa xam mais loolu kay mooy li ma la rek en même temps booy simol yi ci profité waaye di sàccaaleeg yooyu moo gën a andi parce que foofu la commencé woon booy simol bii bu ñu xëyee boole waale ci affaire de sàcc ak loolu lañ ko jëlee rek mais gouvernement bi moo ci war jël ay mesures am képp kuñ ci jàppati nga dem au minimum cinq ans soo ci defee quelques booy yu dégg loolu après ça bàyyi violence parce que amul benn rendement yàq rek la yàq du fi jëriñ dara nañ ko nañ ko mettre rek parce que anglais yi ñoo ñu gën a réew français yi ñoo ñu gën a réew ñoom ñëpp ay déconné lañ mais seen gouvernement ñoo jël ay mesures yoo xamante ne nii du ñu may kenn boobu sens mais bu ñu bàyyee fi di bàyyi bàyyal koo laal ne waroo koo laal waroo def nii waroo def naa moo indi problème bi rek nit bu réewee da nga koy teg fi ñu réew ñu nekk bu boobaa moom dina comprendre li mu def du yoon mais boo ko dee bàyyi bàyyal di ko bàyyi bàyyal mais dem ba dépassé day dem ba benn instant dana dépassé fii parce que ñi ngi koy bàyyi rek muy dem léegi benn ndaje mun fi amati si jàmm ñëpp ñoo gis man mii gëj na dem stade parce que damay xalaat dem stade boo rab fañu ñu may xaañ wala ñu may dóori xeer man dematuma stade damay bàyyi match bi jeex ku gaañoo ñu ne ma diw ma toog mais dematuma fenn ci benn ndaje da ngay pare war a ñibbi doo am foo jaar ñiy sànni xeer fii ñiy sànni xeer dóos loolu neexul loolu neexatul ci sport nawetaan ngi nii mun ñu fexe ba mu pare temps yi ñu ko bëgg a renouveler pour ñëwaat rek premier match bi ñëwaat xeex amaat parce que booy ñoom xeex lañ def ne mooy nawetaan léegi léegi moom bul sax xeex la ko xel ba pare loolu moom pour mu dindee ko waat lool lool lool ah xanaa gouvernement bi jël ci ay mesures rek sinon du changé de waaw du changé quoi. waaw wax nga lu am solo muy nawetaan yi tudd nga lu am solo parce que nawetaan bañ ko daan def pour boole koñ yi ñu ñu ànd la pour euh, mu gën a rafet ànd bi gën a gën a neex bu ñu demee tey ba ba seetlu si violence tey jii papa foogoon ne ñu arrêté ko benn yoon gënu daal moo gën ñuy ñuy ñuy cultiver di ndax tey jii nii boo nee guvernement dañu war a euh, ku ku ku. ku agressé wala ku euh, door sa moroomu supporter ñu tëj la jeunes yi wàcc si dëkk bi taal dëkk bi est-ce que loolu tamit yoon la. non du ay ay jeunes yi wàcc dëkk bi gis nga problème bi dama ne la européens ñoo ñu gën a réew ay supporters gis nga ñoom ay stade yi def ci stade bi chaque match da ngay gis ñuy wër stade bi sol ay blouse rouge di xool tribune bi kon xam nga amul loolu amagul Sénégal kon ñoo ñu gën a réew ñun ñooy def gouvernement bi mooy wax si ñoom kenn du wàcc kenn du wàcc kan mooy wàcc. kan moo bëgg violence ñëpp koo taxaw la même kii violence sax bëggul dekk bëggul bëggul violence bi c'est-à-dire affaire la bu koy defloo rek parce que ëmb maama mais amul ku ko bëgg kon tey ji kenn du violence ñu booy ñoom da ngay jàpp nag waxuma nga jàpp falaa falaa yoo xam ne defuñu dara de nga fexe ba gis booy yi nga ba jàpp yi kenn dootul viol parce que affaire de football bu doon tey doo xeex doo xeex parce que dégg nga seen waa koñ kat am na fi 4 booy 5 booy yoo xam ne ngi tëdd 5 ans doo xeexati mukk kenn du wàcc di déconné fi ay gouvernement parce que lu bon la kenn bëggu ko faw ñu jël ci ay matuwaay parce que lii moom ñu ko seetaanee jëlatuñu def benn sport parce que benn sport du egg du eggati te lay gën a màgg nag buñ ko changé wu loolu moom maa la wax fii ngay dégg affaire bi moom nit bu supporter bu demee ba désordonné ba réew il faut que sécurité moo ko yar sécurité bi moo leen di yar par force ay dóor nii moom day yokk ay ay affaire am nga sànni ay lacrymogène ni seen yoon néewul am ci problème gaañu yooyu yëpp amul important fexeel ba dugg ci seen biir jàpp ay quelques boy yoo xamante ni ñooy coupable yi yóbbu ci kaso bi rek buñ ko ñoom déggee ndax koñ yaatuwul tey boo déggee ci koñ bi tey équipe boo doon fubal def nañu benn kii jàpp nañ quelques boy nga dégg te nañ ko cinq ñëpp dañ koy déggandoo automatiquement ñooñu moom dootu ci déconnetti xaw ma ñan te kuñ ko dégg doo ñëwati loolu rek la affaire nañ jël seen matuwaay rek mais buñ dee xeeb sécurité bi nii day dem bagaay yi duñ leen faale de affaire nit moom bu fekkee day débordé da nga koy teel a napp teg ko ay mesures yoo xamante ne nii ñoom ku ko dégg da ngay daw mais boo bàyyee ba lépp màgg ba sax ah dana xëy rek la de mhm, a ñàng ñu doon ñàng mais dañ leen rek da bañ rek la léegi anglais yi kenn mu seen seen seen match boo gisee nekk nocturne xeex bu bari rek mais dañ ba ñu normal léegi ah mais wax ci loolu rek la de. mais ay yàq ay bàyyi nawetaan moom du avantage ndax nawetaan bon affaire la boo xamante ne nii dafay yàgg am ñu siy liggéey waa zone nekk ci di liggéey en plus que booy tamit di ci nekk ay def ay talent parce que mooy mbapat parce que pour nga mën dem il faut la nga jaar nawetaan jéem a mbapat kon buñ ko yàqee bon du yoon quoi ñu ngi jéem a kay seet sécurité bi nu ngi def ba canaliser booy yi kay loolu moom importance mais bu fekkee ne moom lu ñëw rek ñun arrêté ko kon làmb léegi yëpp nañ ko ndax championnat rek moo fa amul violence te championnat sax am na ñu demee Pikine Guédiawaye bu ñuy fubal bu ñu def mu am violence loolu la quoi affaire bi daal gouvernement bi moo si jël ay mesures am rek mooy li ma wax tonton kàddu yi am na solo ba léegi si sport rek ñu daal di koy tëjee donc euh, gis nañ tey jii que ne Guinée ak Sénégal dañ doon tajee tey euh, si Coupe d'Afrique des Nations muy match derby bi ñu gis ne dafa mujjee euh, nul lan mosi siy sa xalaat. waaw nul bi bon baax na Sénégal parce que Sénégal fi mu nekk nii jekkul quoi ndax ku xam Sénégal xam ne kon tey suñu football équipe bi dana Guinée yàlla dogal ñu niil ba sant yàlla rek la parce que man xaaruma ci woon loolu ah man gis naa ne Guinée tey jii soo mën flotte dafa war a Sénégal parce que Sénégal jekkul mais yàlla baax na xëy na match yi di ñëw daañu trouvé suñuy jour parce que Covid bi ñu si dugal nii man xaw ma nu mu demee mais xam naa ne lu yàq kan bi si lay bokk quoi parce que da ngay am sa équipe. prévoir ba egg ñu la kii ak kii ak kii du football affaire bi jaxasoo nga di yéen boo yoo xam ne préparé wu leen woon en plus day metti quoi mais wax dëgg yàlla Aliou jàmbaar la quoi comme tënee na bi an niil moom wax dëgg yàlla jàmbaar la jàmbaar la kontaan naa li mu def quoi waaw. waaw donc papa yow nan gisee équipe bu Sénégal bi si euh, kan bi nii par rapport ak kan bi passé ba xam yow am nga yaakaar si victoire bi. waaw bii la ëpp yaakaar parce que xam nga équipe souvent day teel a catu boppam. mais équipe bi mu départ nii nii nii dafa mel ni lu xaw a lëndëm ci nit ñi parce que ñun bëgguñu lu xëy rek sotti parce que ku ñu xam foo jëm doo yegg d' accord ñëpp dañu ñooy favori bi nag mais ni ñu départ nii dafa xaw a nëbbaat gars ba gars yi commencé wàññeeku te loolu moo gën tolof tolof yi ndaw ndawaan yi mooy tax ñu mën a jël coupe bi. coupe bi nag boo caaxaan du ko jël ndax ñëpp dañoo ñëw pour football def seen équipe nationale comme ni nga préparé sa bëgg comme ni nga bëggee. bon xëy na nag ñoo fi ëpp ay qualité joueur parce que xëy na suñu joueurs yi ñoo ñoo gën a siiw mais ñi mais Covid bii mooy problème bi moo ma xaw a jaaxal mais équipe bi nekkoon comme ni nga ko bëggee woon muy mat sëkk bon ñun moom Afrique amuñ problème mais comme ni mu demee nii yàlla bu ndikkoon ne chaque match ñu ne diw xaw a jaaxal moo tax ma xam ne affaire bi fa la ñu nekk ay jàmbaar góorgóorlu def jom ak fulla bon xam ne bii moom bu ko xasee perte dana xaw a jafewaat ndaxte day fekk sunu joueurs yi commencé di bàyyi. ndax joueurs yi fi ne ñu bëgg a def ay carrière si si d'Afrique bi parce que ñoom Sadio ñoom Gana boo seetloo ñu ngi bëgg bari ay Coupe d'Afrique te comme ñu ngi commencé commencé nekk seen seen seen i finition xam ne ay ñaaral ne sa wala benn te fi ñu nekk seen digg seen digg doole dañuy ñaan yàlla daal yàlla jàppale leen may leen kàttan ak doole ba ñu jël ko parce que xam naa ñoom gën a bëgg a jël mais nañ gën a góorgóorlu rek yàlla mën na leen dimbali ah yàlla mën na leen dimbali jërëjëf papa kàddu yi rafet na boo amoon sa mot de la fin ak sa ak sa doléance ak looy ñaaxaat askan wi lan lay doon. waaw kanaa ñu góor góorlu rek ñëpp xam ne adduna bi bon nañu bëgg jàmm ndax jàmm kat gisuma lu ko gën fii gisuma lu ko gën fañ jëm kon jàmm mu ëpp importance lépp luy am kon fool beeg politique beeg lamb jeeg lépp lu mu mënti doon nañuy bëgg jàmm rek nañu bëgg jàmm di ku xëy sa kër di ñaan yàlla jàmm. di def jàmm di ut jàmm ndax jàmm moo gën lépp ko Sénégal daal damay ñaan yàlla def fi jàmm def fi jàmm ju mat sëkk ndax jàmm si la lépp xaj waaw loolu daal laay ñaan Sénégal. jërëjëf papa ñun euh, ñooy waa Salam Vision ak waa Kiki TV tey boo amoon ay kàddu yooyu ñuy sànni ak nan nga gisee liggéey bi lan lay doon. waaw kontaan ci yéen nag parce que ay gone ay xale ngeen yu góorgóorlu parce que àdduna nii la quoi nit moom man kontaan naa ci ku bëgg sa ay ambition bëgg naa ku bëgg góor góorlu parce que toq-toq mooy doon yulet quoi te lépp loo gëmul rek commencement bi doo gëm fin am te ni ngeen def ni man ànd naa ci bu baax a baax a baax góorgóorlu leen yàlla jàppale leen te ngeen gëm nag seen bopp. gëm na liggéey ngeen def ñëpp ñoo gis ñu dem ba ca kaw fi lañ commencé woon kon nit ki lu mu métti métti rek jàppale te bàyyi yàlla dina leen jàppale yàlla dina leen jàppale waaw. jërëjëf papa kontaan nañ trop si kàddu yi ñu ngi lay jaajëfal merci. Euh, ci suñu émission ñu ngi ñëw fekk fii nii suñu mag suñu xarit Arona ñoo fekk ko si euh, bërëbu liggéeyukaayam. Arouna tey jii nii euh, gis nañ ne jamono yëngu tey lu ko yëngal yëpp si euh, politique bi si la bokk élection municipale yaa ngi ñëw ku si nekk yaa ngi jéem a samp sa nënd te noo ko defee baax na lan moo si doon sa xalaat. a ah, man de wax dëgg fa yàlla moom amaana tamit ñenn ñu bari nañ mais tamit wute nañ ku nekk ak yi ngay bàyyi xel yoo xamante ni yaa ngi siy dox wala yaa ngi siy wax mais comme violence bi xaaj bi yëpp ay xale lañ te tamit ay xale moom ñooy dooni mag ëllëg ndax yu bëree bëree bëri jaar nañ si. mais tamit bàyyi nañ ko mais tamit ñi nga xam mooy suñ ñu suñu ginnaaw war a ñëwaat ëllëg doon mag ñooñu noonu war nañ leen a dimbale si benn côté bi maanaam ñi nga xam ne amuñu métier ñu leen di forcer di leen dimbalee loolu noonu di jaayante di leen teesi place yi di leen liggéey di leen liggéeyloo en même temps di leen jox seen bëgg-bëgg ndax fi mu toll nii jamono ji nii kenn joxatul kenn reer naan ko reeral lu si nekk yaa koy lijjantil sa bopp te si sa métier nga koy yaakaar mais boo bëggee ñëw di liggéey bay bëgg dee doo ci gis sa bopp bu mu mooy mujjee ëlbatiku changer sa xel mais fii yaa ngi dem bi liggéey ji di si gis sa bopp di nga dem ba benn instant yow yaay jël lu bon ak ñenn ñu bon ak lépp teg na le deuxième bi mooy max bi ah waaw max bi man moom football dama kiiwu ma soriwu ma si mais comme maanaam dem nañ ba passé dóor amul benn wax tey ñu niil waruñoo wax ndax suñu borom moo yor ndam moo yor gañe moo yor réew tamit ñu moom nañ lu suñu borom rek mu naatalu ñu suñu réew ndaw ñu amul liggéey yàlla dimbali leen ñu am liggéey ñu si nekk si lu bon yàlla dimbali leen ba ñu génn si waaw darajay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa salaam Arona euh, yaa ngi wax si léegi si euh, ndawee nañ fonkaat seen liggéey nañ ko gën a téye ñu la fekk tey jii si sa bërëbu liggéeykaay ngay def menuiserie di euh, liggéey bu am solo soo amoon sa doléance yi ngay wax si métier bi ak lan moo la si métteeg lu la si neex ak lan ngay dolli ndaw yi nan lay doon waaw ndax man moom métier bi moom dama doon jàng mais ba bàyyee la sama benn grand frère ki ñuy wax Ibou moom laa nekkal si place bii nii gis ma may taxawaalu ji di nekk si yeneen si la jàpp sama loxo ne ma doo nekk di doxal di dem di dugg si lu di yeneen loo xamante ne si yoon néew si nañ dem nga liggéey boobu ba léegi nag maa ngi sant bu wér a wér maa ngi si gis sama bopp métier bi macha lépp dugg na mais lan mooy problème bi maanaam liggéey bi nekkul loo xamante ni yàlla day ñëw rek wa woon la yoon bi. ku si nekk daa am lu mu lay jox sa cër la am nañu si am dix ans duñu xam dara am ñoo xamante ne dañu am trois mois yàlla wërsëgale leen seen xel naaj ci ñuy defar léegi nag ki nga xamante ne yàlla dimbali na la nga mën si menuisier bi lu bëree bari kooku da nga koy téye waaw ndax fii nii grand yi fi nekk yëpp ñoo bokkoon nekk si atelier bi ñu doon liggéeyee te ba nii nii nii tey la gën a neex tey la waaw maanaam daal dañoo ànd doon benn di liggéey booba léegi nii dara mosu fee ñaaw ñu ngi dóor waar waaw fii moom macha allah waaw te tamit ndaw yi nga xamante ne instant bii nii dañoo jàpp ne seen moroom dañ leen a raw déedéet at yi jeexagul waaw képp koo xamante ne am nga loo xamante ne mosoon nga see visé wu rek boo demaatee rek sa xel dina ñëw suñu borom dina la dooleel ba nga mun a am dara mais comme bërëbu liggéeykaay bi moom ñu ngi siy sant bu baax a baax a baax waaw ndax client yi moom macha allah ñu ngi ñëw waaw man maa fi nekk sama grand ak samay patron yoo xamante ne yàgg nañ boobu ba léegi ñu ngi fi waaw ñun moom ñu ngi dóor waar daal ñoo ngi ah. jërëjëf Arouna léegi euh, sa mot de la fin ak boo amoon looloon looy ñaaxaat jeunesse bi ñaaxaat ko askan wi lan lay doon. waaw man li may ñaaxaat mooy maanaam mbër yi nga xamante ne ñoo nekk si làmb ji di bëre te ñu pare pour pour dimbaliwaale population bi ñooñ ñooñ noonu nañ pare pour liggéeyal population bi te xamante ne ñoom nekkul lamb ji nii rek rek rek rek rek la ñuy liggéeyal dañuy liggéeyal ngir jeunesse bi nga xamante ne ñu ngi màgg ji ëllëg war tegu si yoon bi nga xamante ne dina jub. mbër yi nga xamante ne ñoo ngi si signature yi nañuy faral di soññ xale yi tamit waa te xamante ne ñoom saa buñ déggee Balla Gaye mu ngi bëre rek bàyyi nañ lépp te buñ demee foofu noonu lu ñu fay fekk seen yaay seen yaay fekkeewul waaw te tamit àndandoo day wàlle waaw te tamit képp ki nga xamante ne yaa ngi si biir lool noonu yàlla na la suñu borom génneewaat si loolu noonu ba nga nekkaat si yoonu siraatal mustaxim liggéeyal liggéey jaamu yàlla dimbali sa yaay ak sa pap ak sa famille waaw barki Seydina Mohamed jërëjëf ak di kontaan yéen nag ah dund doyul waaw am na solo am na solo waaw yàgg ak wér ah, ak yokk ak ndam barki sëñ Fallou. kontaan nañ trop jërëjëf merci. suñu émission fekk fi tey suñu papa ñu ko doon laaj euh, tey euh, match euh, Sénégal Guinée bi gis nañ ni mu mujjee muy match derby mujjee nul la moom lan moo si xalaatam. waaw ñu leen di sant di leen match bi moom man nag xëy na deuxième mi-temps bi laa laa ci laa gën a suivre. mais ni ma ko gisee daal match bi moom vraiment ah, nii la mën a demee daal ndax match dëkkandoo la eh, te comme yàlla dogal na njëkkoon nañoo bon bi ñu mujjee football eh, Sénégal moo ko gagné woon ah, bu ñuy footballaat du yomb donc boo xoo ci ni ma ko gisee dafa mel ni Guinée ñoom ñoo gën a yenu match bi ñoo ko gën a jël. waaw mais eh, n'empêche Sénégal tamit xëy na peut-être am handicap bi ñu xaw a am tuuti mooy manquant yi nga xam ne am nañ ko ci jour yi nga xam ne ñoom ñoo xaw a tawat daal. waaw mais n'empêche euh, vraiment jàmbaar lañu donc euh, euh, comme vraiment am nañ benn point rek yàlla dogal na xëy na peut-être mën naa ne qualifié nañu parce que bon comme am nañ 4 points donc dese nañu benn match ah, yàlla mën na def ñu ñaan yàlla yàlla def ñu génn ci mën a qualifié incha allah waaw mais match bi daal moom ni ma ko gisee moom mooy nii rek la mën a demee quoi nii la match derby donc kenn mayewul dara et puis dara mi ngi ciy euh, bon gis naa ci benn affaire mooy benn kii mooy heure bi ñuy joué mooy 13 bi ndax 13h tamit bon xam nga dafa tàng ci sunu ci tàng ci jour yi dafa metti ci jour yi. donc loolu et puis ak euh, tamit jour yi nga xam ne yu bees nga xam ne ñoo ñëw yooyu yëpp am na ci ay impact daal ci match bi waaw mais nag ah, nañ jéem a defarwaat ah, jéem a waaj jéem a a waajaat sunu troisième match incha allah ci kàttu yàlla loolu daal laa ci gis quoi. jërëjëf papa euh, yaay ñu ngi euh, wax ne équipe bi euh, joueurs yi gis nañ ne ñu bari dañoo tawat ba xam am nga yaakaar ne fu ñu tolloon daaw dem ba final ba xam ren dinañ dinañ dinañ fa mën a tollaat ba jël ndam li andi ko fii nii Sénégal ba xam am nga ci yaakaar. waaw football la nag football la football moom lépp a ngi ci mais xam naa ne ci sama xalaat bi boo moytul dina mooy gën a jafe ci sama xalaat mooy gën a jafe ndax bon préparation bi des na joueurs yi am na ay problème donc yooyu yëpp dafay am impact de bon climat bi foofu tamit xam nga tàng na yooyu yëpp da ciy joué te comme joueurs yi ñun ay ay ay yi lañ gën a yor sunu joueurs yi gën ñëpp ay professionnels lañu donc yooyu dafay am impact ci ñoom waaw mais waaye nan euh, ah nañ ñaan rek nañ ñaan rek ndax li xew suba moom kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam waaw mais xam naa ne du yomb du yomb waaye di ñaan nag yàlla dafa may ñu ndam waaw ba coupe bi mën ko jël andi ko fii incha allah waaw mais xam naa ne daal euh, c'est pas c'est du yomb daal du yomb du yomb waaw. gis nañ ne euh, jamono fu mu toll nii violence bi bari na si langum politique beeg si làmb jeeg si football beeg ci nit ñeeg seen moroomu euh, naataango lan boo doon am looy ñaaxaat euh, sénégalais yi ak jeunesse bi lan lay doon. waaw violence moom baaxul xam nga nit moom su fekkee ne sportif nga sooy dem di wuti da ngay sóoraale ñaar am mbaa ñàkk booy dem nag da ngay yóbbaale ñaar yëpp waaye su fekkee da ngay dem ne man dama waruma ñàkk. loolu en général sama xalaat loolu laa yaakaar ne moom mooy indi violence bi wala sama mbër bu ñëwee warut warut a ñàkk xam nga loolu loolu moom bu fekkee ne yaa ngi doxee rek il faut que violence am am mbaa ñàkk sport noonu lay doxe doxe sooy dem na yóbbaaleel ñaar yëpp loolu daal man laa jàpp ne mën na euh, euh, bokk na ci li xam ne li ma gën a sooxe ak tamit euh, ñàkk ñàkk am discipline ci am ci yenn ci yenn xale yi ñàkk am ñàkk am yar waaye nit ki bu fekkee ne sa doom day buy buy jóge sa kër nga ñaax ko ah mu ñëw sangu ba set sol yërëm yu rafet ñëw toog ah seetaan mbërëm eh, lu ci mën a xew mu génn dox ndànk dem këram loolu je pense que loolu boo ko bu fekkee ne kenn ku nekk noonu nga ñëwee rek yaakaar naa ne mën na violence mën naa ñàkk daal. Hmm. jërëjëf papa ñu lay jaajëfal kàddu am na solo ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa temps bi ñuy jox alhamdulilah. Bienvenue sur Salam Vision.